Lamine Menga Lamine Menga Souleymane Cissé Souleymane attention Wali Wali oh la parade de François. attention oh, c'est le but c'est le but c'est le but marqué par Amenya. Oh, arbitre. waay waay arbitre. waay waay qui siffle. arbitre bi lan la wax. nee na nee na faute arbitre bi nee na faute. man faute non bii la wax bii bii. arbitre nee na faute bii la wax non bii la wax bii la wax. arbitre faute la wax waay rek waaw arbitre nee na bii la non bii la waaw. waay arbitre bi. coup franc kan moo signé coup franc ay ay Abou li doy na waar ah. waay waay man j'ai pas compris. ay gisuma photo ay. mais malheureusement <laughs> malheureusement ay. but refusé. but sama réalisateur dina ci ñëwaat waay